loolu ne. waaw foofu moom sonn laa ne. waaw waaw na boobu. diwaan ñaw yi mbaa mi ngi avancé. waaw avancé bu baax baax a baax. ah en tout cas bi nga defal nii moom ñëpp a ngi koy joow. ñëpp a naan ma ñaw bi xam nga damay déconnecté du ma xawul xam li xew. mais noonu la rek léegi Sénégal moo tax. ñii mbaa ñu ngi ci. yëpp pe dañuy def quelques réglages rek perles quelques finitions la ñuy defar nii. Ah, ñaw yi xaw na yàqamte de parce que GP bi daf ko war a daf ko war a yóbbu. Ah, bàyyi xool booy yi ah. salaamaaleykum salaamaaleykum gars yi bës du tuut boroom lay tollool. waaw gars yi tabaski ñun ñoo xewle. ñoo xewle de golden boy ba du golden boy. li faa golden boy. <laughs> kese tet na. waa cum jëlal gars comment vous allez waa ñu ngi cool Fallou ñu ngi si jaamu bu baax. waaw war leen a bëggal rek war leen a yëgal tamit suñu événement bi ñu am lendemain tabaski. <laughs> gars bu boobaa. gaay woowaa dina mel ni sawaru vampire ndaax dina mel ni fataayo puso dina mel ni biir buy daw ñammi ñammi rek amu toog nangu rek wala bañ tus nak toj sa mbaar mu naa toj sartun <laughs> toj ca tus bala <laughs> ca tus bala de yegg nañu kati jàlloo ca golden boy bala kon waa ca golden boy bala kon yéen a ko gisandoo mu ngi noonu de mus ngeen gis sama baara mbay musoo leen ko gis de dafa mel ni musoo gis sama baara mbay de te pare nga pour baara mbay nii Arambay adal kejengkal bat. utak tak utak tak. tak tak ma jaaxal ci wax ji yëpp kii fi nekkoon moo tax mënuma lan moo nga takk sera mbëggeel rek ma si dugaloon té bëtu mbëggeel xoolul melokan gis na lool non lepp du mëna a xaj fii di ko raw bari na dinañ ci waxaat man instant dama am problème sama yaay sas na ma xar sama jabartam wax noppi may dangal ñu ne ma dugg ci waaye comme ko ñëw ma sant yàlla xanaa di nga jox sama jabar lu mu sol sax gis nga duma la neub de nga sire ño bokkon ben far ah bon waw gis nga ma ba xamni carrément dafa bëgg mu fessel ko lol dama bayyi bayyi kook la mu bëgg ray ma sax wala soda ma sax def ndax fi mbeugelam tolon ci koku dama kaa ak lolou waa joojoo tax yow bugula la Siré bugula ndax ko di xaar dégg li nga wax dinañ ci waxaat. Hmm. jàppale ma mam su lu ma jàpp amo temps amoo temps. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Suwe. naam. ana nga. maa ngi. na maa ngi fi. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm. ñu egg si biir. yow nitu fii nga kaay ko. Suwe foofu nga may àggal. maa xale bi moo réew. yow meratuma ngay mer yow yaa war a mer yow meru daaw ba tey nga ni doo giif jëlal sa xol bi nga dugal ci lom xoolal sa kër gi xoolal fi ñu la dugal ah jëlal fleur yi xoolal bi yow ñëpp lañ ñee ci koñ bi nga di rek doo giif lan la dugg nga ndox ba ci baat séer sëy bi su ma la mayewul woon nga nekk man ci kër gi maa ngi ne awma jëkkër ñu ñuy baatal loolu dina rafet yow am nga habillage bu rafet rek sëyal sa sëy loolu mooy dëgg yaa ma nax di lom ba mu ñëwee man xaw ma ne am na wala amul damaa foog ne am na xaalis ma may la ko su ma xamoon ne kii dina doon alalu baayam bii moom laa lay may loolu loo ma ci merewee wax nga ko bàjjan say biir wax sa yow moo tax doo xam ne ñuy sayee yow li may dund sama xol bi bàjjan xam nga ko te lépp yow yaa ma ko teg lépp yow la sama yaay tey bu doon dund xam nga ni lii nga ma teg du ko nangu lu muy def leneen lu muy def duggal la ci kër gu mel nii waaye yow yow Mbaye Cissé xoolal sa piscine bi waaye yow bàjjan tey ma laa jox may de bee nga sangu te nga ba piscine bi bàjjan yow piscine na mi comme kan laay waxal keneen ko du yow ah yow xooloo li may dund ak sama nakkaru xol bii ma am yow lom mii li may dund yow yaa ko ko teg du man de yow yaa ko teg góor dem liggéey suba ba ngoon nu koy wooye lom douze métier façon liggéey bu ne mu ñëw liggéey ko bu paree tëdd ma ma tegee loxo ma bippi ko loo ma ñàkk fayda jigéen ju ne muut yow taatam su ne wërañ koo topp ko koo xamante ne jigéen sax da koy gis di ko nopp mu teg la loxo nga ne su doon man la su ma la tegee loxo nga toog dinaa la kuntaaba ba nga tëll fale ma yéeg sa kaw def li may def lii lan la waaye dimbali ma jox ko ko waaye yaa ngi koy jox ki nga bëgg fekk na ma fële ca kër ga lii lan la yow looy xam naa ne kaa bi rëccu la. waaye na la lenn bàkkaar bi yow yaa koy gàddu. man baax na. digal jox ma dara damay dem. tabaski daaw nga nii aw ma xaar saloom douze métier mu ñàkk jom mii man la lijjantil ma ci moom xaar ba faas damaa mujj sama dëkkandoo yi di ma yónnee ay tànk ak pooj jugal lijjanti ma ko foo ko mënee amee baax na yow lijjanti ko te jox ma ma jënd xaar. dinañ la saamalaat rek gis na na nga ñàkkee woon tabaski daaw noonu nga koy ñàkkaatee ren meex nga naa ma lijjanti ko fu ma ko amee baax na yow bàjjen boo ma mënoon saam si tali bii sax di nga ko def. maa day taali loolu dinaa ko def nu ma koy defee tamit ne la toog a sëy sa dafa sa abiyaas doo ma teg naqaru xol ba pare bëgg maa rey génnal kër gi. danga dàq. bàjjen génnal kër gi. ubbi sa xol bi def ci lom moo gën ci yow. man sama bàjjen lu tax ñuusuma ko.